di ko ci ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool te yokk ko wér ba mu àggale yéeneem ak i naalam di ñaan suñu boroom subhaanahu wa taala mu def jàmm ci réew mi def ko ci mbooleem réew jullit yépp di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu nangul ñu ci suñuy jaamu yàlla jéggal ñu ci suñuy bàkkaar defal ñu tawfiq ñu yàggale ko ci ni mu ko bëggee te mu nangul nu ko bokk na ci xéewal yi suñu boroom xéewal jullit yi muy lii di weeru koor ndax li mu ci dëxëñ ci ay <coughs> ngëneel bari na lool li mu ci dëxëñ ci aw ay yiw bari na lool ba xelum doomu aadama lott na ci xam lépp mu doon weer woo xam ne suñu boroom da ci faral lool jullit yi ndax bu leen jëngalee seytaane nga xam ne yitteem mooy yàqal doomu aadama dox diggam ak mbaax dox diggam ak fàggu aw yiw loola mel na ne suñu boroom bëgg nañu góorgóorlu fàggu aw yiw wu bari ci weer wi mu dëxëñ ci weer wi guddi goo xam ne moo gën junni weer loole di yiw wu rëy ak xéewal gu rëy goo xam ne jullit bi war na koy dàkk waxtu wu nekk saa bu duggee ci weeru koor bokk ci jagleel yi nga xam ne jagleel na ko weer wi mooy di ci goreel aw nit ci sawara guddi gu jot ci weeru koor suñu boroom dana goreel mbooloo moo xam ne dana leen musal ci sawara yàlla nañ ci suñu boroom boole yonent bi sallallahu alayhi wa day wax ne weer wi mën nañ ne toroxtaane wala yaasu weesuwul nit ki dugg ci weeru koor ba génn ci te faraluñ ko ay bàkkaaram dugg ci weer wi sàggan li nga war a jégguloo sa boroom li nga war a góorgóorlu defoo ko ba weer wi jeex nga ànd ak say bàkkaar wa raxima anfu rajulin daxala alayhi ramadaanu sala nsalaxa qabla an yuxfara la kon moo tax bu ñu duggee ci weer wi day baax ñu gën a farlu ci dundal ko ci jëf yu baax gën a farlu ci moytu sànq suñuy waxtu ci weer wi yi ñuy war a dundale weer wi nag ci jëf yu baax yu bari la yoo xam ne dañ koy fàttalente rek la jiitu ci dundal weer wi mooy woor ko woor doon loo xam ne ay tuyaabaam bari na bari koo xam ne suñu boroom wax na ci ne moom moo koy fayal boppam wutalu ko ab lim wutalu ko ab natt kullu kullu ibni aadama lahu illa siyaamu fa innahu lii wa ana ajzi bi nee na jaam bi lu mu def moom moo bu defee aw yiw ñu fay ko ca fukk yu ni ba mën nañ ko ful ba mat juróom-ñaar téeméer waaye nena bu dee koor moom duñ ko wutal ab lim kullu kullu amali bni aadama lahu alxasanatu bi ashri amthaliha ila sabamiati dicfin waaye mu teg ci suñu boroom wax ne illa siyaamu fa innahu lii wa ana ajzi bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne képp koo xam ne weer na weer wi ngir gëm yàlla ak sàkku tuyaaba dinañ ko jéggal la jiitu ci ay bakkaaram saama ramadaana waxti waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi moo tax nag ku koor googu war nañoo xam bu baax mooy lan ndax mooy bañ a lekk bañ a naan tàmbulee ko fajar ba jant bi sox wala gën naa sori loolu sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ci masaalikul jinaan mu ngi ñu ci yee di ñu ko bàyyiloo xel ne koor yemul rekk ci ñàkka lekk ak ñàkka naan loola ku ko jàpp danga waru ci koor gi suma siyaamu fanta bi lam yanxasir fi adami l akli faqat la taxtarir mu nekk ku jàpp loolu mën ngaa woor te fekkte sa koor ab xiif dong nga cay jële bari na kuy woor ànd ak mbooloo mi ca kooram googee ab xiif rek la cee jële wala yaas billah yàlla na ci yàlla musal mel na mi ngi ñuy wax xabal dëgg-dëggi koor ginnaaw boo bàyyee lekk ak naan nee na mooy say cër yépp dañoo war a jàpp ci lépp loo xam ne ay moy la lépp loo xam ne ay njuumte la lépp loo xam ne wuute naa ndigali suñu boroom yi muy koor dangay ngay wooral say bët mooy doo ci xool lenn lu araam say tànk woor doo ci dox lu araam say nopp woor doo ci déglu lu araam saw làmmiñ it woor doo ca wax lenn lu araam sam xel sax danga ko war a wooral ci bañ a xalaat xalaat yu yées yoo xam ne njariñ nekku ca tax mu ne fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi amsik an nazari lil xaraami wal mashi wa samci ma al kalaami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima kon loolu mooy jiitu ci weeru koor wi dundal ko mooy woor ko te sàmmoonteeg sa cër yépp nga wooral ko bañ a nekk di déglu lu amul njariñ walla ngay wax lu amul njariñ wala ngay xalaat amul njariñ wala ngay dox ci jéego yoo xam ne amul njariñ loolu lu mat a bàyyi xel la ci koor gi waaye bokk na ci li ñuy dundale weer wi mooy naafile yi muy naafile yi guddi yi ak naafile yi nga xam ne mooy ànd ak julli farata yi yépp jullit bi bu duggee ci góor gi lam ca daan def da koy war a gën a fonk gën koo yokk su ko daawul def mu fexe ba di ko def ndax taxaw weeru koor naafi ko ku ko def suñu boroom subhanahu wa taala dina la jéggal say bakkaar man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi te képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu boo ko mënula defal sa bopp it nga dem ku mbooloo may defee ànd ak def ko bu boobaa mel na ne ko ku fanaanee taxaw yonent bi sallallahu alayhi moo ne man qaama ma imaamihi xata yansarifa kutiba lahu qiyaamu layla waaye loola it ñu bàyyi ci xel du am péexlu du am po du ab doxantu waaye nit ki da caa war a dem jaamu ji suñu boroom taxaw guddi yi moo tax mennum po benn caaxaan lépp luy nuru caaxaan ak po waru caa waru ànd di ko def ci teewlu di ko def ci ci yar bokk na ci li ñuy dundale weer wi te muy lu ama am solo mooy di saraxe ak a dimbale ak joxe xam nañ ne sallallahu alayhi wa ku tabe la woon waaye sax na ne weeru koor moom ak tab ko day yokk mooy gën a gaaw ci joxe ngelaw loolu it xam xam nañ ko ci cheikhul qadim radiallahu taala anhu ku mënoon a joxe la waaye wax nañ ne weeru gàmm ak weeru koor bu ñëwee day raw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ne sarax waxtu yëpp la baaxe jamono yëpp la baaxe fépp la baaxe waaye bu dee weeru nag moo ci gënati afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadan sarax nag buñ ko waxee bari na ay melokaan bari na ay anam joxe aw ñam ci la bokk joxe aw ñam di lu am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci lim digle mooy ñuy joxe aw ñam di jokku bokk di julli guddi loolu nee na ku ko fonk boo dee danga dugg àjjana yaa yaa ayuhan naasu afshu salaama wa atcimu taama wasilu l arxaama wa sallu billeyli wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam mu mel ne nag li ci gën mooy kuwoor ba ngoon nga jox ko lu mu doge dogal ku woor ku ko def la mu am ci tuyaaba danga danga ko am te du wàññi ca am dara loolu sallallahu alayhi wa moo ko wax ne man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajri gayra annahu laa yanqusu min ajri saaimi shay te ku woor nga jox ko aw ñam loola jéggaluk suñu boroom da caa nekk goreel ab jaam ci sawara da caa nekk te du tee ka woor moom la mu doon am ci tuyaaba dara du ca wàññiku yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax ne man fattara fihi saa'iman kaana magfiratan li zunubihi wa itqa raqabatihi min an naar wa kaana lahu mislu ajrihi min gayri an yanqusa min ajrihi shay ba mu ko waxee am nañu xalaat ne am nañu amut lu bari mel ne bala ngaa joxe rek danga war a desal am ñu ne ko am na ci ñun ñoo xam ne amuñu du doy sëkk bañ mën caa dog ba mën a dogal keneen yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yool bii ñu wax ci ku dogal ku woor képp koo xam ne àggoo ci jox ko ndogu lu mat sëkk waaye fekk ku woor nga jox ko guuxub soow rekk wala ab tàndarma rekk wala guuxub ndox rekk loola mën nga caa amee tuyaaba ji nga xam ne ki joxe ndogu dana ko ca amee kon li am solo mooy yéene ji ak dimbulee gi yuti llahu hada sawaaba liman saiman ala mazqati labanin aw tamratin aw sharbati ma te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da caa teg ne képp koo xam ne fekk na ku woor mu jox ko mu naan ëllëg sama déeg bi nga xam ne ku ci naan dootoo marati mukk suñ boroom dana la ca màndal ba keroo ngay tàbbi àjjana yàlla na ko yàlla defal bokk na ci liñ war dundale weer wi te muy lu am solo muy far lu ci jàngal Qur'an ndax xam nañ ne weer wi mooy weeru alquranul karim ci la ko suñu boroom wàcce yonent bi sallallahu alayhi wa wax nañ ne ci xadis yu wér daana jibril daana ñëw weeru koor nafarak moom alquran ba mu jeex loola kon dey wane ne jullit ñi war nañoo gën a góorlu ci jàng alquran te lii may tuya lii maye da ca bokk ci yi ca ëpp doole mooy jàng alquran ndax ginnaaw araf woo ci jàng da nga ca am aw yiw yiw woowa ñu fulal la ko ba mat fukk te buñ ne araf waxuñu baat waaye aw xaraf baat bu nekk ay xaraf la làmboo loolu sallallahu alayhi wa sallam da ko leeral wax ne man qaraa xarfan min kitaabillahi fa lahu bihi xasana walxasanatu bi ashri amthaliha laa aqulu alif laam miim xarf walakin alifun xarf wa laamun xarf wa miimun xarf kon nag nit ki lu muy gën a jàng alquran gën a bari tuyaaba bu ca mënee boole settantal ga loola mooy la ca gënati أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح bi sallallahu alayhi wa waxoon na ne alquran ak weeru koor dañuy ràmm ab jaam ëllëg yowmal qiyaam ndax koor day wax suñu boroom ne ko maa ko lekk dox diggam ak ay bànneexi bakkanam ci bëccëg bi kon yàlla suñu boroom nag ma ci tiin al alquran ne man di dox na dox naa diggam ak nelaw ci guddi kon nag suñu boroom nag ma ci tin nee na ñoom ñaar nag bu ñu tinoo suñu boroom suñu boroom dana jéggal kañu tinul yàlla nañ ca bokk الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعت منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال fa yushfaan Sëriñ Tuubaa radiyallaahu wax na lu baree bari di ci soññuñu ci ñuy góorgóorlu ci jàng alxuraan ci waxtu yépp waaye rawatina waxtu jamonoy koor wax ne texe ñeel na jaam boo xam ne day jaamu suñ boroom ci jàng téeréem bu màgg bi fa tuubaa li abdin yaabudullaha rabbahu bi tartiili quraanin azimin yaqi karba téere boo xam ne ku koy jàng dana dox sa digganteeg njàqare kon nag képp koo xam ne miin nga ko lu gàtt-gàtt nga jàng ci ñett isib ci bis bu nekk wala lu ko ëpp ki nga xam ne nag xëy na kàttanam bariwut mu fexe ba waxtu bis bu set moo am lum ci jàng lam ca man ki nga xam ne sax mënu koo jàng waaye mën na weneen làkk mën a settantal maanaaya loola mën na cay dundal waxtoom ni ko jàng jàng ko baaxe it ku ko man di déglu moo gën sànq sa waxtu ci déglu loo xam ne amul njariñ bokk na ci liñ mën a dundale bëccëg waxtu waxtu waxtu suñuy waxtu ci weeru koor mooy jàng xasida yi sëriñ bi radiallahu taala anhu ndax xasida yi lépp luy ñaan yu baax lépp luy tudd yàlla lépp luy jéggulu lépp luy sant yàlla jullit bi war koo def sëriñ bi dëxëj na ko ci biir xaside yi ca muy loo xam ne suñu boroom nangul na ko ko kon nag lu ñu war a mën a wute tuyaaba la luñ war a mën a defare suñuy xol la defar ci suñuy ruux rawatina ci waxtu yu sell yi ko man di jàng ci beru di ko sellal ak di ko déglu fuñ koy jànge ci anam goo xam ne day ànd ak yar ak teggin ni nga xam ne noonu lal ko sëriñ bi di jàngale di ko wan képp koo xam ne it am nga lott nga ci déglu jàng gi wala fekke fañ koy jànge jumtukaay yi nga xam ne ca lañ koy jàllale bari na boo wéeteeg sa jumtukaay teewlu di ko déglu ca yéene ci teew ca jotaay ba mën naa defar sa xol day yokk yit sa yiw ak say tuyaaba nga mën cee dundal sa weeru koor bokk na ci liy dundal waxtu ci biir koor gi mooy takkook jàkka loolu waxtu wu nekk la baax dafa rawati rekk ci waxtu koor nag ndax julli ba noppi rawatina fajar toog ca jàkka ja ba jant fenk loola suñu boroom dana la ci defal yoolub aj ak umra loolu sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ne ku jullee fajar ca mbooloo ma toog di tudd yàlla ba jant fenk mu julli ñaari rakka dana am yoolub aj ak umra yool bu mat sëkk man salla alfajra fi jamaatin summa qaada yadkuru llah xatta tatlua alchamsu summa salla rakaatayni kaanat lahu ka ajri xajjatin wa umrat tàmmatan tàmmatan tàmma mu bokk ci li ñuy dundale weer wi it muy li'tikaaf te mooy taqoog jàkka ab diir yoo xam ne danga ca yéene jaamu yàlla rek ak wéetal sa boroom loole lu baax la loo xam ne jullit war yi war nañ koo fonk ci weeru koor boo koy defit nga taqoo jàng alquran ak julli ak tudd yàlla ak ñaan yàlla lépp rek ngir am ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala loolu lu baax la ci waxtu yépp waaye lu baax la ci weeru koor lii di umra it ku ko yàlla man loo ci weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ku umra ci weeru koor umraam googe dana ca am yoolub aj day tolloog aj waaye ci biir weer wi it xam nañ ne jullit bi war naa farlu ci dundal guddi yépp rawatina guddi yi nga xam ne ca lañuy dàkk laylatul qadri ndax laylatul qadri guddi la goo xam ne ku suñu borom taw feexal nga dundal ko loola danga ci ame tuyaaba ju ëpp boo doon jaamu yàlla junni weer loole nag kenn mënu ko dabu am ko feneen ci lu dul nga dëppoog laylatul qadr te sallallahu alayhi wa mu wax ne képp ko taxaw dundal guddik laylatul qadri ngir gëm yàlla ak sàkku tuyaaba ay bakkaaram yi jiitu yépp suñ borom dana ko ko jéggal man qaama laylatal qadri imaanan saaban ihtisaaban gufira la ma taqaddama min bi bokk na ci it li ñuy dundale waxtu yi mooy di tudd yàlla saa boo naree toog di waxtaan wala nga nekk ci lu njariñ ngay tudd yàlla tudd yàlla ak di ñaan yàlla ak di jéggulu yàlla te ñaan nag lu mat a fonk la ci weeru koor ndax day weeru nangu ñaan mu am ca waxtu yoo xam ne it ci gën a nekk waxtu yi nangu ñaan ndax nit ki waxtu mii dog lum ñaan suñu borom subhanahu wa taala dana ko ko may kon ku àgg ci waxtu woowu war nga lu ñaan sa boroom lépp loo xam ne lu baax la mu am ñaan yoo xam ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu way na ko ci ay mbindam ku ne war koo farlu am ko bu waxtu dogee mu ñaan ko ak yeneen ñaan yu baax yoo xam ne xam na ko ndax sallallahu alayhi wa kat moo ñu xamal ne ki woor ba waxtu dog buy dog bu ñaanee ak ñaanam duñ ko delloo suñ borom dana ko nangu waaye xaaju bi xaaj bi mujj ci guddi gi ci koor suñu boroom subhanahu wa taala da ci nangu ak ñaan di ci jëggal ku jéggulu suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi ci wax ne wa bil asxaari hum yastaghfiruun kon lii yenn la rekk ci yoo xam ne jullit bi mën na cee dundal waxtoom ci weeru koor ndax sàggante weesuwut weer wi ñëw li ci suñu boroom dige ci ay tuyaaba yépp nga sàggan ba tuyaaba yooyee raw la say bàkkaar topp la walla yaasu billah yaan cal musal ñu ñaan suñu boroom subhanahu wa taala mu kàttanal ñu ñu yeggale weer wi ci jaamu ko ci dundal ko te mu nangul nu ko di ko ñaan mu indi jàmm ci réew mi indi jàmm ci àdduna bi di ko ñaan mu sàmm ñu sàmmal ñu suñuy kilifa yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha yokk ko wér yokk ko kàttan lépp li mu yéene te naal ko mu sottal ko nu ànd ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 ashhadu an laa الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان فعظم قدره بذلك وأجزل فيه من الإحسان فيه تفتح الجنان وتغلق النيران وأيده على سائر الأشهر بأن قيد فيه كل مارد وشيطان أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم في كل وقت وأوان أما بعد فيا قوم قد فاتكم شهر شعبان فهل منكم من زوده بالطاعة واستخلف عليكم رمضان فهل منكم من أخرج من قلبه العصيان شهر طهر الله به الأبدان وأنزل فيه القرآن ويا فوز من ادخر فيه صالح الأعمال واحتسب صيامه wa qiyaamahu li zil jalaal wa qaddama amalahu inda allahi wa awdaah wa man amila saalihaati radia allahu anhu wa jacala aljannata marjiah ومن حديه قال عليه الصلاة والسلام في بعض خطبه ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار ومن سقى فيه صائما سقاه الله عز وجل من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وكان كمن أعتق رقبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي طيبة ولنجزينهم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان لسائر الشهور سيدا وأكمل فيه الفهر حيث جعله للبركات والخير موردا وأنزل فيه القرآن موهظة وشفاء لما في الصدور وهدى أحمده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بالبينات والهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين سرمدا أبدا أما بعد فيا عباد الله من أتعب نفسه في طاعة الله فقد أراحها ومن قيدها بفعل الأوامر wa tarkin nawaahi faqad atlaqa saraaxaha wa man araada an yadxula aljannata falyatub fa tawbatu fi haada shahri miftaaxuha fattaqullaha ibaadallah wa tuubu ilayhi fa inna allaha yaalamu ma antum alayhi fa hada chahru siyaami walqiyaam wa chahru tilawati alquran ala dawaam wa hada chahrun tahara allahu fihi al abdaan ويجزي فيه بالإحسان وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مضاعف فدعاؤه مستجاب وذنبه مغفور يغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala al falaah qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar laa allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله هها نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء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 سمع الله لمن حمده ربنا الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام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 حسابهم us